du ñu seetaan comme ni ñu koy defee chaque jour ñëwti leen fii ci seen seen RTS 2 tey nag maa ngi andi li nga xamante ne nii mooy euh, club sandwich xam nga de temps en temps nag ñu dem ci euh, grande surface yi wala ci fast food yi dem di jënd ay li nga xam ne mooy shawarma te boo toogee sa kër aussi mën nga defar benn sandwich boo xamante ne dina ko xaw a xelmati neex yomb te gaaw nga defar ko te doo ci am benn problème tey nag club sandwich laa andi euh, gis ngeen que ni maa ngi am li nga xam ni mooy pain arabe amna oignon vert tomate oignon normal viande bi nga xamanteni viande shawarma amna épices vert moutarde euh laitue ak li nga ni euh, suñu persil coréen ak piment vert def

ngay def piment vert bi ngay ko ci def directement ñu koy bàyyi ba nga xam ni viande bi ak euh, marinade biñ ko mariné woon dina ci dugg ba jus bi ne génn ci yàpp bi yépp daal di deñ su ko defee ñu daal di ciy def li nga xam ni mooy suñuy oignon vert ñu jël tamit trois éclats d'ail daal di jël suñu tomate. mën nañu jël fii aussi ñu dagg si nga xam ni mooy ci coriandre bi.

daal ci def daal jël olive ci def suñu ñu ko directement ñu sorti ko ci assiette bi du feu la suñu persil coréen pour gëna conserver goût voilà gis nga boko defé ni boy lek déjà ni odeur bi ki ni rek machallah boy lek nak nag da nga ciy sentir goût persil coréen bi oignon vert bi ak tuuti oignon cru bi nga xamanteni ni bu ko defé say sandwich do bëgg mo gawa a jeex suñuy pain arabe mu ngi ni bu la nexé mën nga ko dag bu fekkee tamit euh, da nga bëgg xaw a toll ni man nag mën nga ko. nii bu fekkee da nga kii nag mën nga ko def en deux mais ñun dañuy préférer def ko nii rek ndax fii ñi ma fi yor ay kilifa lañ. ma daldi di jël laitue benn feuille pour bañ mu dem directement ci pain bi tooyal ko nii laay def ma daal di jël farce bi.

jël tomate teg ni jëlaat aussi tuuti mu génnee design u assiette bi kon nag mbokk yeeg xale di ñuy seetaan comme ni ngeen ko gisee ni defal nañu suñuy club sandwich ba pare li nag mën nga ko def kër ga vite fait denc sa viande mariné ko saa yoo ko soxlaa rek génnee sauté defal say tomate oignon reprendre ko defal ko sans problème nga mën ko lekk nak mën na servir de dîner mën na servir de petit déj pourquoi pas bon appétit à demain ci beneen recette. pour defar li nga xamni moy suñu club sandwich da ngay soxla sa viande shawarma soxla pain arabe oignon olive vert tomate persil oignon vert piment vert ak laitue tomate ak tuuti ketchup pour décoration bi.